salaamaaleykum Oustaz. maaleykum salaam. Oustaz am Bilal. waaw Bilal mbar doon tam. waaw boobu mbar jàmm ba. alhamdulilah dama sonn damay dem di tëdd léegi di waaj laa fa am. waaw dégg la waaye dafa am loo xam ni dem la ko war a laaj. parce que man Oustaz man sama kër daal sama nekkin dara dara moo fi baaxul. sama doom yi amuñu respect man rawatina seen ndey dara laa fi njëriñu. samay doom jàppama man daal kër gi dem fee mel ni pupp den may coow di ma dum ay xale yoo xam war maa lu ñu seen baay. def ñu ko dara loo wax ñu teg den may kooku ñaar di ma def lu ne gennaaw nag yow la fi yàlla teg fii ngay nitu diini mu ñëw laaj la nan laa war a def xam nga yow alal la jiital taloo dara ngir sàmm ak jaay soow doom dañ koy yar ndax ki la yar bu la yaree nga yar sa doom mais boo mootul yow mii sa bàyyi yar na la waaye ku xamadi nga woon loolu lebal la rek boo motu moom lañ la fay. sa doom boo demee ba looy wax du ci teg du def lu ko neex ci yow la. ma ne koolal may ma nga naan ma sama man sama man sama baay dama koo respecté ba mu génn Abdoulaye sama doom moo def lu mu def. kon loo ma ci moom war parce que dem la war a laaj. yow xam yow mi yaa respecté. yaa yow nga naan yow doo nitu dara. amoo benn xam-xam. amoo la fay rek. ci biir maa tay ñàkk jom mooy bañee góor gu ñu jiital ñàkk maa ko tey moor moor moor nga ci ku yaru ku ba yaru ku yem ci yow dëpp du ma sa morom sa bàyyi laa yow xaaral yu génn Pape man fu mu la dëggee ak nan ma la dëggee nan laa lay ma si ah, dëgg am na ci dëpp ah, non dëggu ma la de looy taxaw ma tiim na la fu ay ay ca waay sa nga waay ci la nekkee xamante ni nga doon dégg maam yu weñ yooyu doo comprendre yoo xamante ni waaye ay fii bi moom yow da yow da nga doon fële daa jàpp ah lan la jàng dëgg ma koy métti lu par ma damay lu tooy waaw dafa bëri wax nag man ma ñu lay jàpp nga fi dafa bëri ay weñ yow li moom waaw sa dara. kenn yarul la te sama sa dara. yaa am na xam hmm. sa dara. yow la. la yow. maa ngi toog mu ma si tànk dëgg ma. waaw waxuma dënn waaye mu jël ay ndox ak di ma ko wis naan ay weñ dama mën a weñ. Hmm. loolu lu ci nekk kii xale la xale bu ndaw la. nekku ci nag. Ah, day foo day foo xale la. dara nekku ci. waaw yaa ko reewoon naa ko caa. waaw yaa ko reewoon di ko wax waaye sa yu génnee gis ku ku def musiba bu bon ci biti. Hmm. waaw yow da nga bëri problème ah. baal xale bi ma doon xale bi dina tax ko soo xam ne kenn ko laal kenn ah, xale bi. yéen a ma fàtt yéen ah, nga ci biir

waaye kii nu muy def nii yow. yaa ngi bàyyi ko sama seen bi tuub. tey yow tey yaa ngi tuub yow loolu tuub yow. nee naa la ma am jëfandiku woon fu nekk. yow mënoo bàyyi xale. xale la. boo weesu buntu bi di tooñ sama baay fii laa ko dindi woon fii laa yemoon ah. booy weesu buntu bi di tooñ. ah dindi sama baay fii laa yemoon booy weesu buntu di tooñ. fii yemal fi kon yow sama baay booy weesu buntu bi di tooñ. wooyi wooyi wooyi wooyi wooyi wooyi. noo dee lu xaw. ah yow xale bu toll nii ma ñëw nga naan ma kaay. kaay taxaw fi. la ma dee ma jàmm la. kaay. ah. sëgal. ah. sëgal ah da nga may dee ah loo xaw. ay ay ay ay ay wuy. waa Diop yow. dimbale wala lan la yow dëgg may may. mag bu toll nii yow. yow oh. lu gàtt nii. eh yow lu sooyee ma neexee ceeb ko du baax moom. wa kii xale mag wala wala maa jommi gannaaw bu ñu seetaanee Abu Bilal ci loolu doy na waar ñuy ñaan yàlla di ndokkeel ñëpp yàlla waxoon nañu ne koor gi yàggul ay ayama daat la waxoon ay fan yu néew léegi gis nañ ci xaqul walidayni mooy euh, droit wu ñaari wayjur mu yaay ak baay ndax yàlla lam ñu xamaloon mooy gannaaw yàlla ki ci topp ci wàllu taral ak waay ak ci wàllu taranga mooy sa yaay ak sa baay wa qada rabbuka an la taabudu ila iyahu wa bil walidayni ihsanan yónnent bi ne bu la sa way jur gërëmee yàlla gërëm na la waaye bu la sa ñaari way jur xarabee yàlla xarab na la ridallahi fi ridal walidayn wa suxtillahi fi suxtil walidayn kon gis nañ ni wax dëgg yàlla ñuy respecter ñaari way jur c'est très important yàlla ci boppam moo ko santaane waaye wax nañ ne boo yoree sam kuy ba mu màgg yow lay njëkk daan moom la arab yi wax ne sàmmin kalbak yaakul ka ba tax na gis nga ndeysaan noonu xale bi doom ji def ko ndekete noonu la daan def ay waajuram moom la yónnent bi wax ni bu fekkee ne yàlla jox na la nga nekk xale gis mag moo xam ne borom bi jaw la nga fonk ko respecté ko yàlla dina la jox ay fanam boole la xale boo xam ne moom itam dina la teral boole la xale boo xam ne dina la respecté waaye bu fekkee nga toroxal mag yàlla dina la def mag waaye dina la boole xale yoo xam ne ñoo lay toroxal ndax man a saalihan fa li nafsihi wa man asaa fa alayha eh, dëgg itam li ñuy wax ne puso la gone dina ko for mag dina ko for gis ngeen gone googu kooku mat na ko bay wala mu mat ko nijaay mat na ko sax bay di sol kurus koros ni ci mbedd mi wa nekk mag waroon na waroon na nekk exemple waaye xale yu ndaw say doom di la jubbanti gis nga xale bi gis na li muy sol rafetlu wu ko mu ne ko kaay mu ñëw mu jàpp ci noppi bi dóor ko mbéj mu ne ko lan la mu ne ko li nga sol rafetul loolu nag la ñuy wax ne dëgg puso bu réer la gone dina ko for mag dina ko for kon mbokk yi rek la woon fukkeelu guddi gi ak juróom ñaar maanaam fukkeelu guddi gi ak juróom benn yaa ngi julli juróom benn raka raka bu nekk nga jàng fatiha jàng isa sulsilat al ardu zilsalaha wa axrajat al ardu asqalaha fukki yoon yàlla nañu yàlla nangul nangul leen asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu